ñu ngi lay nuyu di la dalal euh, Mamadou Ganno waaw jërëjëf ñuy fàttali ne maireu Médina euh, Chérif nga euh, nekk ca Kolda waaye it membre apéris di économiste en même temps tey ñu doore waxtaan wi ak politique ñu gis ne ñoo ngi réviser lii di fichier électoral bi ci lañ jëm donte joxeeguñu benn date ndax tey date bu ñu mënta fixer à sept mois des élections mbir yi du wees. déedéet xam nga euh, jërëjëf soxna si euh, maa ngi lay nuyu di nuyu seen auditeur. Mhm. Euh, ñun dañu am programme boo xamante ni dañu defoon dialogue national xam nga dialogue national président de la république boo xamante ni bu mu gañee élection yi deux mille dix mhm. mu ne moom day yaatal concertation yi ci dialogue national maanaam toutes les forces vives de la nation mhm. bu waxtaanee dañu am ay jubóo léegi loolu moo tax ñuy dem ci élection euh, locale yi bu ñuy ñëw mm-hmm. ci élection locale yooyu dafa am ay processus processus yooyu am na ay accords yoo xamante ne dafa am solo mm-hmm. maanaam d'abord ci euh, élection maire bi maire bi de léegi nekkatul comme avant dañ koy def euh, élection au suffrage direct li gën a am solo mooy li gën a am solo mooy euh, adopté guñ ko ma dagg la ci wax ci donte adopté guñu projet de loi waaw mais président loolu la waxoon loo loo xamante ni dañ ko nangu dañ ko am consensus mhm. moom waxoon na du problème amul foofu donc loolu wane na yaatuwaayam euh, ak liggéey ak waa opposition ak société civile mhm. pour jàppale sénégalais yi en tout cas ci processus politique. Mhm. loolu nag yaakaar naa ni du am problème. Mhm. incha allah ça sera adopté par une loi au niveau de l'Assemblée nationale xam nga loi moo war a changé. Mhm. Ah, bu dul loolu euh, dem nañ ba ñu waxtaan ñu juboo ci euh, maanaam ci période électorale bi. xam nga soo gisee entre un mois ak deux mois loolu du problème. dem nañu ba ñu am ay presque consensus président de la république moo war a dogal donc jël na date date boo xamante ni ça arrange tout le parce que xam ngeen ni balaa ñuy dem élection i faut ñu def révision liste électorale mhm. te révision liste électorale yooyu loolu la nekk xam naa la mu xaafo ni ñëpp dañuy xam ni ah liste bi tàmmal nañu liste yi mhm. léegi nag parti politique bu ne mën na def liggéeyam na am représentation mhm. ci ci liggéey bi am représentation ci commission yi def liggéeyam ñun ci côté APR ñun am ko ñëpp donc tàmm nañ def loolu depuis bu ñu nekkee opposition donc dañuy continuer te parti politique yi aussi mhm. war nañ def seen seen seen seen liggéey notamment opposition xam nga mënoo nekk fii fekk doo dem ci commission yi doo def dara bu ñu defee liggéey ba pare après nga nekk ci ginnaaw di di ñaxtu di wax loolu tamit yaakaar naa ni euh, loolu bokkul ci euh, opposition républicaine. loo bëgg a wax foofu pourtant opposition bi ñoo ngi ci tableau dialogue bi di waxtaan di saytu commission yi ñu taxawal ñoo nga fay teewee seeni représentants alors ban opposition la ñuy wax fu mu nekk nii. waaw mais xam nga ci opposition am na ñoo xamante ni eh, donc ñëpp Sénégalais yi xam nañ leen. Mm-hmm. ñoom eh, lan mooy seen seen seen liggéey. Mm-hmm. opposition télé ak opposition rajo. Mm-hmm. dañuy nekk fii eh, amuñu wuñ benn base politique. seen seen liggéey bi yëpp ak seen wax bi yëpp nekk di sànni xeer fekk duñ def benn proposition bu concrète benn base politique ñoom nag xam nañ leen Sénégalais yi xam nañ leen. li gën a am solo mooy. président de la république ak ñun suñu parti APR ñun dañu nekk ci processus boo xamante ni pour yóbbu démocratie Sénégal ci kanam te mm. loolu la ñu nekk te loolu la ñuy liggéey et justement soo gisee depuis président bu mu ñëwee mm-hmm. démocratie mu ngi yokk processus électoral bi mu ngi yokk consensus mu ngi gën a am donc loolu nag dañ koy sante yàlla bu baax continuer nag ci liggéey boobu continuer woo opposition ci question yoo xamante ni question électorale yu am important au niveau national ñu waxtaan ko bu ñu amee ay consensus euh, alhamdulilah bu ñu amul ay consensus nag donc yàlla def na nag léegi président de la République moo war a dogal. donc day dogal kon daal euh, yow boo sañoon tey opposition bi euh, opposition participative lay doon. waaw lool xam nga dëkk dëkk boo dem. Hmm. nga dem ci dëkk yu am démocratie dëkk yu mag yi. Hmm. opposition war na nekk opposition républicaine. donte wax nga ne Sénégal am na démocratie alors lan. waaw waaw mais xam nga malheureusement fii Sénégal li am fii mooy opposition boo xamante ni ñoom xalaatuñu sénégalais yi. lu ñu xalaat mooy naka la ñuy def dañu jot nguur ñi même su fekkente Sénégal bi day suux loolu sax ñoom dañuy am ci nguur ñi loolu moom euh, loolu mooy seen objectif loolu nag nekkul opposition bu républicaine su baaxee war nga wax baax na su baaxul nga ne ah baaxul mais ñoom ñu gis lu baax président la lu mu def ci ay réalisation lu mu liggéey fii ci Sénégal ñëpp gis nañu Sénégal visage bi dafa changé bu baax. d'accord nga xool domaines yi yëpp ci tali yi ci agriculture ci élevage. Mhm. domaines yi yëpp ay Sénégal dafa changé. Mhm. même domaines yoo xamante ni Sénégal yi sax dañ ko calculé maanaam ci ay muy production miel apiculture yooyu yëpp changé na donc loolu mooy développement développement nag soo koy def. da ngay ànd ak ñu bëgg développement ñu xamante ni bëgguñu développement comme opposition yooyu yooyu da nga leen di bàyyi à côté Sénégal yi xam nañ leen yow nga loolu la ñu nekk ci loolu la ñuy def gis ngeen ni temps yi région de Matam région de Saint-Louis. Mm-hmm. foo xamante ni dafa amoon ay enclave de centre. Mm-hmm. nga président de la République am na foofu ay tali. nga dem ay région Fatick région Kaolack nga dem ci Casamance naturel ñun ñëpp gis nañu Sénégal changé na ñun ñëpp gis nañu suñu région yooyu changé région naturelle googule euh, monsieur le maire nga nekk diwaanu euh, benn diwaan bu nekk foofu ca Kolda ñuy dëgmal ay local tey ji ndax déjà euh, monsieur le maire day sampaat ndëndëm. waaw léegi xam nga commune bu ne euh, euh, man ci sama commune commune Médina Chérif département Kolda lañ bokk ba département bi am na quinze communes mhm. wante ci quinze communes yooyu commune bu ne day am ay euh, leader yoo xamante ni bëgg nañu ñoom ñoom tamit nekk ay maire mhm. loolu c'est tout à naturel mhm. wante nag li am solo mooy nañu fexe ba ñun lu ñu amoon ci ay élections yi passé ñu am résultat bu ko ëpp élections yi passé ñun ñëpp gis nañu résultat yu baax la ñu amoon ci cinq cent cinquante Eh, eh, commune yi Sénégal ak ville mm-hmm. eh, seen temps yi APR ak coalition bi ñoo ko gagné woon mm-hmm. li am solo mooy aussi suñu suñu leader yi nañu toog waxtaan loolu moo am solo nañu toog waxtaan pour ñu gagné parce que moom gis ñu opposition fu mu am fii ay doole li li am solo naka la ñuy def pour ñun euh, responsable yi pour ñu daje. Mhm. léegi nag loolu nag def nekk liggéey boo xamante am solo la boo xamante ni dañ koy def ci di ci élection yi pour ñu gagné gox yëpp ak commune yëpp. kon daal yow ba tey mënagoo wax ndax candidat nga wala déet. waaw loolu moom population ñoo koy wax man ci liggéey laa nekk heure jotee incha allah xam naa ni moom dinaa population yi ñoom ñooy wax mais ku gis fii Médina Chérif lu ñuy liggéey fi comme boo xamante ni cinq pour cent la ñu amoon taux d' accès à l' potable grâce ak suñuy liggéey ak euh, liggéey président de la république hmm. mun naa la wax fii moom on va atteindre les soixante pour cent ñun ci commune bi ci bok bopp def nañu deux collect deux collèges yoo xamante ni on est passé de d' abri à deux collèges avec la coopération décentralisée euh, on est passé électricité de de dix pour cent léegi avant en tout allah balaa at bi di jeex. Mhm. dinañu dem euh, peut-être autour de vingt trente pour cent. loolu nag dafa am solo loolu mooy liggéey askan askan wi euh, heure bi nag su jotee incha allah am naa ne moom population yi ah yaakaar naa ni lu nu du am problème comme d'habitude incha allah du am problème li am solo mooy may li may appel bi may lancé mhm. au niveau national mhm. di parti APR ak euh, coalition bi ak euh, grande mouvance présidentielle bi mhm. nañu toog waxtaan waaw parce que suñu problème bi mooy suñu au niveau interne ambition yi des uns et des autres loolu suñu ko teeree les querelles internes yaakaar naa ni moom ci cinq cent cinquante bi même suñuy perte du bari lu neew la donc li am solo mooy nañu continuer di liggéey nañu continuer la mobilisation man ci loolu laa nekk sur le terrain fu mu ne nii maa ngi sur le terrain mobilisation mais continuer sur l' activité de développement. monsieur le euh, maire ngay économiste en même temps euh, tey jii wala sax bu yàggul la njiitu réew mi jógee tournée économique tey jii nan nga ñu ko mën a décortiquer ci wàllum économie donte ñenn ñi jàpp nañ ne euh, tournée bi politique la gën a euh, niru tey ji yan aspect nga jàpp wala nga ñu mën a euh, wax ne yooyu tëral li jëm ci koom-koom yi nga xam ne njiitu réew mi jot na koo def ci tournée économique bi waa xam nga ñi ñi critiquer tournée économique yi ñuy wax ay tournée politique mhm. xanaa presque ñoom amaguñu amaguñu histoire Sénégal Sénégal ñi nekk fi yëpp ay président de la République jaar nañu ci ay tournée économique waxtaan ak askan wi. waaye ndax nii lañ ko def. mais mais li gën am solo yi li gën am solo mooy surtout président de la république Macky Sall moom marqué na foofu différence bi. Mm. xam nga soo nekkee président nga toog palais de la république ñu lay jox ay information tous les jours ñu ne lii la lii la lii la lii la ñu war a def donc loolu am na solo mais nga dem ci askan wi rencontrer les populations à la base déglu leen nga déglu seen doléance jëtee ko ci réalisation loolu moo gën am solo président la république lu mu def loolu moo wane na ni c'est un président qui est très proche de sa population nga jël sept jours nga génn Dakar sur la chaleur de Matam ak de Saint-Louis nga dem rencontrer les populations dem surtout inaugurer ay infrastructure loolu lu am solo la wante nag opposition Sénégal lu ñu bëggoon mooy na président bi it toog fekk du def benn réalisation loolu moo leen tiital réalisation moo leen tiital xam nañu euh, président de la république lu mu defoon ci premier mandat bi muy def lu ëpp loolu ci deuxième mandat bi loolu nag dafa leen tiital bu baax. kon kay tourné euh, bilan lañ ko waroon a tuddee euh, monsieur le maire tourné bilan moo gënoon a jekk ci tourné bi wala. là, du tournée am tournée économique bon lii ça rentre dans le cadre qu'on appelle de la politique économique une politique économique c'est une politique euh, des éléments important factuels mm la demande ah. comme euh, le yu demee noonu mm -hmm. donc les infrastructures loolu nag bokk na ci programme bi mhm. euh, soo leen gisee bu baax Sénégal euh, ak Covid bi ak pandémie bi différence bi am na par rapport ak yeneen dëkk yi. Mhm. am na ay dëkk yu bari seen taux de croissance dafa wàññeeku maanaam seen kom koom yi dafa wàññeeku bu baax a baax. Mhm. loo xamante ni lu lu ñu waroon lu ñu faraloon di am loolu dafa wàññeeku bu baax mais Sénégal amaguñu taux de croissance bu nul wala bu négatif. taux de croissance bi am nan a nattee ay euh, nga xam ne mooy taux de croissance bi. am nga euh, loolu loolu ñi bari ñuy wax franchement dañuy wax dans l'ignorance. ok soo jëlee tali. Mm. tali dafa nekk infrastructure structurante loo xamante ni soo ko defee. Mm-hmm. boobaa tu crées les conditions du développement. Mm-hmm. soo jëlee entre Podor nga dem bay Matam. Mm-hmm. nga créé foofu tali opérateur économique boo xamante ni waroon na def foofu cinq jours de transport marchandise. dina def foofu en moins d'une journée mu egg ci soo jëlee euh, infrastructure euh, euh, sanitaire mhm. koo xamante ni dafa feebar waroon na tëj boutique am waroon na tëj lu muy liggéey dem Dakar faju ji mhm. léegi nag maintenant su fekkente day faju ji loolu ça crée de la de de du revenu et ça crée de la valeur loolu lañu ñuy wax infrastructure am bu bu ñu xool nag tali du créer emploi tali ñu ko defee baax base du développement mënoo def développement économique sans créer les infrastructures de base mhm. c'est des infrastructures qui sont très rentables long terme donc loolu nag président mu ngi def mais même soo jëlee dans le court terme président def le financement des quatre cent cinquante milliards loolu tamit bokk na ci loo xamante ni financement direct pour les financement pour l'emploi des jeunes et ça ça participe directement des ménages au revenu des populations. et ñu am luñ ci seetlu muy ay nervi yi nga xam ne euh, vidéo yaa ngi wër àdduna tey ji ñi euh, ñaa ngañ lan nga euh, jàngatee mbir mi. ci lan ma bu baax. présence nga xam ne euh, moo ngi wër àdduna euh, ci réseaux sociaux yi ñu gis ko ci euh, tournée président de la république tey ji mbir moomu lee. mbaa man man yaakaar naa ne lii xam nga léegi moom manipulation a lan moo ci manipulation mënoo jël tournée tournée président la république nga nga nga résumé ko ci nervi yi wala ci leneen. leen dama ñu gis ci ñu nemmeeku ci ci tournée bi ay présence su nervi li ni mel moo ngi wër àdduna fu mu nekk nii ndax réseaux sociaux yi gaaw na gaaw goo xam ne communication bi euh, benn seconde ngay def mu jàll tey jii mu jaaxal askan wi ñu bëggoon ci am sa lecture un peu. waaw loolu laa loolu laa doon expliqué mm. euh, ñun en ku xam président la République parti APR ak coalition bi. Mm. xam na c'est un parti non violent. Sénégal xam nañu fi ay ay période mm. xam nañu ñu ñëpp régime bi passé régime yi passé. Mm. chaque fois dafa doon mën ay violence mais violence moom ñun nekkul ci suñu vocabulaire bokkul ci suñu aada bokkul ci suñu cosaan en tant que parti. léegi nag malheureusement waa opposition lu ñuy jël rek dañuy jël élément boo xamante ni amul benn njëriñ ñu koy def actualité donc loolu nag nekkul actualité Sénégal fu mu nee nii li am solo mooy li am solo yi Sénégal macha allah kaaraange mu ngi fi Sénégal soo gisee ñu ngi ci tudd feu loolu nag yàlla def daf ñuy jàppale loolu nag ci liggéey président de la république liggéey gouvernement du Sénégal loolu moo am solo. mais monsieur le maire loolu ñëpp a ko gis ci réseaux sociaux yi wala dañ ko maquiller ay images yu ñu maquiller la la selon vous. man non man mënuma wax ay images maquillées mënuma wax ay images yoo xamante ni euh, lu réel la parce que aussi euh, comprendre nañu dans le cadre. des réseaux sociaux aussi il a beaucoup de manipulation. Ah. même voilà donc loolu laa mën a wax en tant que responsable donc moi j'appelle au calme j'appelle à la cohésion j'appelle la paix mais la violence ñun ñëpp xam nañu la violence provient de l'opposition am nga violence verbale c'est nag la violence physique tous les jours c'est une violence verbale perpétrée par des membres de l'opposition qui sont mal en vue qui n'ont aucune popularité qui n'ont aucune base politique et c'est des gens qui la violence c'est des gens qui appellent euh, au je pense que quand waa presse bi waroon ngeen condamner genre jaar yooyu la ñu a condamner bi ku leen andi foofu kon euh, da nga jàpp ne euh, sabotage la opposition bi ñoo leen fa andi. waaw gis nañu tournée président de la république gis nañu chaque fois euh, voilà opposition gis nañu président fu mu dem Sénégal yi ñoo ko bëgg Sénégal yi ñoo ko bëgg bu baax a baax nii président fu mu dem. population yi ñooy génn de façon spontanée di ko accueillir loolu nag dafa métti waa opposition métti na leen bu baax a baax donc euh, mënuñu ko dindi nag parce que loolu yàlla moo ko def. li gën a am solo ñun en tout cas euh, en tant que maire en tant que responsable politique en tant que universitaire. Mhm. moi je je suis pas un partisan de la violence. violence lu mu mënta toll nag violence physique violence verbale violence moom baaxul mais ah. on sait qu'au Sénégal la Euh, verbale la violence qui appelle à l'insurrection la violence qui appelle à la destruction loolu ça provient de l'opposition yéen ñëpp xam nañ ko yéen tamit xam ngeen ko. d'accord monsieur le maire euh, bu Médina Chérif euh, Mamadou Gano ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax. jërëjëf kontaan naa bu baax maa ngi nuyu seen auditeurs yi. Mhm. di nuyu sénégalais yi.